dañoo gis président Macky barki démb bi ñu génnee ci élection yi mu recevoir euh, kuréelu imam gi ma la tudd sànq muy imam et olima du Sénégal euh, njiit la porte-parole ba ak yeneen ñaari imam ñoom ñëpp am nañ kàddu ci biir daje ba mais li nga xam ne mooy kàddu yi fa ruusee jógee ci président Macky mooy daf mel ni moom euh, fi mu bëgg wala boog du ma wax sax fi mu jàngatee mais fi mu bëgg ñu jàngatee défaite bi mu am ci élection yi mooy loi bi ñu indi woon ci assemblée nationale pour criminaliser wàllu ngóor jigéen te ñu bañal ko askan wi loolee la jàpp ne moo waral ba Euh, defet bi ñu am ñu am ko ndax ay hommes politique ñoo ci duggoon ci biir euh, ba yàq seen der jaxase leen ak askan wi ba ñu perte élection yi euh, taxawaayu imaam yooyu ak jàngat bi nga xam ne moom la président am ci ne li tax ñu mu ñàkk élection yi mooy ñàkk jàlle procédure boobu est que gis-gis boobu nga am ak taxawaayu imaam yooyu. waaw xam nga awma gis-gis <laughs> waaw awma gis-gis alquran mooy gis ak tëtoona rijaala shahwa min dooni nisaa tax góor dem di seeti góor te bàyyi fi jigéen ñi yàlla ko wax ci alquran kirim xam nga kirim mbooleem luy doon crime góor jigéen la góor jigéen ko gën doon crime yàlla moo ko wax de moo wëlbati suuf ci kaw waa sa doom yabal fa ay malaaka sóoratu lóot euh, saaru lóot loot du du turam mais dañ koo tuddee lañuy jëfee ca nit ña moo tax ñu tuddee ko loot kuy sëyee góor ci gannaawam mooy loot seetal loolu yàlla yebal malaaka ñu wëlbati suuf seen kaw kooku du kirim loolu du kirim xanaa lii moo gën a garaaw kirim yàlla tourné wax ne nag waaw yéen du ngeen dem ci jigéen ñi bàyyi góor ñi faale wuñu yàlla yàlla ne ku ngeen ci jàpp ci bu wér na ngeen ko jamat ba mu dee ngeen sang ko sang ko woo Iran ndaw mu jullee ko ndax moom amul daraja amul dara na ko jullee ñu yóbbu ko suuli ko ci armée li jullit yi fa lañ koy suul jullit bi mooy yàlla la jullit bu mooy yàlla la loolu ngay xam kenn du ko def yéeféer jullit bu mooy yàlla la moo tax dañ koy yóbbu ca armeel ya suul ko fa buñ ko suulee nag am na malaaka yu leen di sulli yóbbu leen ci sëddoom foofa la ñuy suul yàlla bëgg ko yàlla wax na la ko nee na la demal ci jigéen ñi bàyyi góor ñi wax nañ luy àtte bi mais àtte bi nañ ko respecté nañ ko respecté ku ko mën a def ku ko mën a def nañ la jàpp jamat la ba nga dee ñu sang la sang la ñaanal la yóbbu la ci armée li buñ jël borom dara ja nag nañ jël ko mel ni man kon bàyyi leen di wax ay imaam fii ay ustaad fii ay boroom xam-xam fii bàyyi leen loolu su dëgg ñëwee jël leen dëgg su nekkee ci dëgg dëggal leen ko su nekkul ci dëgg weddi leen ko mais loolu mooy dëgg weddi leen ko weddi leen ko yàlla rekk a fi yàlla rekk rekk rek a fi kenn nekku fi du yaa ngi màgg màgget bi jaaw weex furu lu la def lool te dangaa ñuuloon war ngaa xam ne léegi nga dee ñu suuli la del wax lu leer del wax lu leer li leer mooy góor jigéen nañ ko jàpp rey ko buñ ko reyee nañ ko sang nañ ko sang nañ woo ko ko jullee ko mel ni man ci ñàkk dara ja suñ ko jullee suuli ko jeex na fuñ ko yóbbu moo xam jullit bu mooy yàlla la dañ koy jullee jullit bu mooy yàlla la waaye li tax ma wàcc li tax ñu daanoo affaire góor jigéen bi ma wéyal ak looloo ko def mais ngeen ne ko waaw gannaaw yow xam nga ne góor jigéen baaxul xam nga ne yàlla tere na ko mais niñ ko arrêté ci réew mi moo tax moo gën président nga di ko wéel ñu xam ne ñi ay vrai élément lañ ñu xam ne ay vrai élément lañ waaye naan ko woyi moom kay fa ngay gisee moom kay nangam moom kay luy loolu ndax lii lii lii xaalis lii tax lii de seet ko lii lii de lañ leen dóor ñu bëgg a ànd ci li dagan bëgg a bàyyi li xaraam mais du fe du dem du dem ñoom ñëpp a yem diine ji ku ci dugal sa loxo danaa ko ne përëj dam sama yoon nekku ci taarix sama yoon nekku ci taarix taarix am nay carte mais diine ji diine yàlla ji ak diinu lii wax di maliki yow mi diini lakkum diinu ko waliye diini muy borom duma seetaan kenn di ci dugal lu ci bokkul lu leen neex wax leen fu leen fu leen neex waaye du dem de du dem bi ci des nag bu magi wax lool na wax ne rek yàlla mi doon moo mi doon maye moo nangu yàlla ñëw nangu nguur gi maire yi ñeneen yorko moom daal ilimaan yeeg ustaas yeek boroom xam-xam yeeg boroom alal yeeg ñépp yem maa la wax ne lu yàlla àndul loola du sotti yaa maxsharal jinni wal insi in istataatum an tanfuzu min aqtaari samawati wal ardi fan fanfudu fanfudu laa tanfusun illaa bi sultaani su adduna bi yépp àndoon ne nañu fal diw su bés ba jotee danañ xam ni ah, duñ ko fal danañ fal keneen ci ci ci ñàkk tey yàllaa yor lépp yàllaa yur nguur yàllaay maye yàllaay fale yàllaay folli buñ ci génne yàlla na ko ci dugal nañ ci dugal yàlla moo leen folli am na ñu ca des moo leen fa bàyyi am na ñu fa jóge moo leen fi jëlee yàlla la du kenn yàlla la yàlla la xam nga ni nu mu tudd euh, waaye kii boobu nu mu tudd waaye euh, yeewi askan wi ak wàllu Sénégal ak yeneen ak yeneen ak gëm sa bopp voilà seetal li li yeewi Sénégal am musuñoo xalaat ne danañ ko am waxuma dara waaye Casamance ak Sénégal ak ah, Sénégal lay wax de ak Casamance wala boog ma ne ma ne Sénégal rek Casamance Sonko fa ne Sonko fa ne dakaar Plateau Dakar bi ku fi ne Barthélemy fi ne ak ak ak Khalifa te mënul fexe fexe ba jël Dakar loolu bindu yàlla la daf lay jox lii xañ la lii nga sante ko lim la jox waaye bul bañ a gis lim la jox ndax la mu la la mu la xañ nga di ko xëcc loolu du loolu du dem